शेरे काय मजेला jigéen ñi daw si leen gaaw si suñu boutique bi nga xam ne moom moo di Braya boutique ma ne ko fan la nekk ñu ne rond-point gaz ba boo jugee croisement 22 rek dangay ngay jàkkaarloog ñun mbokk yi jaratul ngeen di daw di dem foofu nga xam ne moom moo di Petersen xam ngeen ne nag ñoom dañoo yaatal seeni ay mbir moo tax xale yu jigéen ñi ñoom la ñu taamu foofu boo fa duggee bépp biisu boo bëgg am nañu ko ma ne ko biisu plaqué yoo xam ne ni mu rafetee noonu la baaxee waa Braya boutique daal moom la askanu Sénégal taamu yéen xale yu jigéen ñi bu leen ko kenn nattali yi te gëm naa ni sax ñun ngeen faral ñun ngeen gëm ndax suñu ay biisu plaqué kenn mësul gis yu mel noonu si mim réew bu fekkee ni da ngaa jóge si marché bi boo tourné si feu bi rek ñun ngay jàkkaarloo ah mbokk yi kon jëratul ngeen di dem foofu nga xam ne moom moo di Petersen li ngeen fa daan wuti yëpp indil nañ leen ko foofu nga xam ne moom moo di rond-point Case ba boo ñëwee dinañ leen ko jaay engrais te seen xol dina sedd di ngeen kontaan booleen leen demee di ngeen del si waat Raya boutique xam ngeen lan la da ngeen may jox gaaw numéro téléphone yéen ndax ñi ngi ma koy laajte ñu ne ma numéro téléphone téléphone da ngay def 77 509 08 25 mbokk yi daw si leen gaaw fi nga xam ne moom moo di Braya boutique. fonkal ma say goro say njëkke say xaritu jëkkër asalaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan yàlla def jàmm ci àdduna bi yëpp. di remercier ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi suivre analyse yi di ci joxe participation yu am solo yooyu parce que comme ni ñu leen ko waxee woon rek ñun kese suñuy xalaat doyul ndax lu kenn mën ñaar ko ko dàq alors képp ku am xalaat ki li ñuy def nga yaakaar ni buñ ko defee neneen dina gën a rafet ba ñëpp mën ci jariñu ñu ngi lay déglu di wax ni xeebuñu benn xalaat. di leen rappeler aussi que numéro bii ngeen di gis nekkul numéro waa Marodi TV numéro waa lu xew TV la waxoon nañ ko ci yeneen vidéo yi mais li tax ñu koy rappeler c'est parce que am na ñoo xam ne du ñu déglu vidéo ba mu jeex dañuy commencer vidéo bi rek gis numéro bi jël ko di woote wala ñuy message naan Marème lañ soxla wala Jalika lañ soxla wala genre ñun ak waa Marodi TV bokkuñu liggéeyuñu ak ñoom yoruñu sax seen numéro. donc ñun ñooy waa Lu Xew TV ay analyse lañuy def ci série bi analyse yi nag lu ci bëri suñu xalaatu bopp la mais comme ni ñu leen ko waxee rek keneen ku indi sa xalaat tamit ñu jël doole si te li waral ñu koy def c'est parce que dañ gis ay points yoo xam te ne yu am solo yu série bi di jàllale ñu bëgg message bi gën a jàll ñu ci teg suñu baaraam di ko gën a leeral pour yeete pour nit ñi mën ci jariñu loolu rek mooy suñu objectif alors numéro bi li tax ñu bàyyi ko fi encore une fois mooy pour ñi nga xam ni dañu bëgg publicité am ci lu ñuy yëngu bëggoon mu am visibilité ñu mën ko jàllale ci YouTube bi lu mel ni wàllum njënd ak njaay wala ñi nga xamante ni seen nii dañu am ay idées yu ñuy jox wala aussi ñi nga xam dañu am histoire yu ñu bëggoon a partager ak nit ñi ñu jox leen suñuy xalaat loolu moo warloon ñu bàyyi fi numéro bi j'espère que point boobu leer na alors tey waa Lu Xew TV ñoo dikkaat ak yéen ci beneen vidéo ci seen série maîtresse d'un marie gannaaw tey bu ñu seetaanee épisode vingt ba pare dafa am ay quelques points yu ñu ci noté bëggoon ko partager ak yéen point bi ci njëkk mooy dañu gis ni biram bi Jalika demee dafa commencé waat di naan et on avait remarqué que à moment donné changé woon na bàyyi woon na naan bi doon defi effort mais le fait que ko dem moom moo tax mu commencé waat jëlaat butéel bi am na ñoo xamante ne ñoom seen chagrin bu ñu amee lu leen metti li ñu koy mën a faje mooy di naan wala ñuy tux et d'ailleurs je vous dis que nii c'est pas la meilleure solution du li nga xamante ni moo gën seeni problème man ngeen ko régler sans pour autant ngeen di jël alcool wala ngeen di jël cigarette parce que dafa doon loo xamante ni baaxul da lay yàq soo amee problème man nga ci waxtaan ak koo xamante ni si sa la jigéen na la mu conseil la dëfal la mën nañ jël exemple ci li nga xamante ni si ni moom la joor di def ak Jalika ñëpp gis nañ mu ngi koy ñëw di ko waxtaanal dem na sax ba di ko maquillage di ko tooñ muy ree pour mën a digérer li nga xamante ni si moo nekk ci moom ay xarit dëgg loolu lay jariñ donc si toutefois da nga am problème gisal sa xarit bu la jigee nga mën a waxtaan ak moom mën la delloo si yu bëri moo gën tey ngay jël alcool wala ngay jël cigarette pour mën a fàtte say problème donc biram le fait que mu commencé waat naan ça veut que ni Jalika manqué na ko et moom sax wax na ko Cheikh ci biir yi waxam Jalika bañalu ko woon dara lépp la ko doon defal danaan sax dem mànd ji di ko wàccu foofu yépp mu xëy du ko wax dara mu defar kër gi yépp kon ay waay ngir yàlla ñun góor bu ñu amee jabar bu ñu bëgg di sonn ci ñun di def lépp ngir ñun nañ ko téye mais am na ñoo xamante ne nag bu seen soxna nekkee ci kër gi di leen sëyal di def le tout pour ñoom dañuy jàpp ni mooy loolu duñ ko sax gis mais li ñu wax rek nit bala ngaa xam li mu lay jariñ mu sori la biram bi jalika demee lay door a xam dëgg-dëgg importance bi même bu ñu xoolee ci yaayu biram bi jalika demee ngi ngeen ko mu xëy di bale commencé di appart di fuddatu et bi fi jalika di nekk loolu lépp jalika moo ko doon defal kon moom mi ngi doon reconnaître importance bi jalika amoon ci biir kër gi mais moom nag kaawam c'est un cas particulier parce que dafa am ay arrière ak papay Jalika loolu moo waral mun accepter Jalika moo waral li muy def yëpp ci lu baax du ko gis te loolu ça arrive tamit des fois parfois nit dina dugg ci sëy fekk waajur yi nga xamante ni si ñoo takk sëy bi ci seen biir dañuy am ay problème donc problème yooyu day topp ba xale yi seen sëy donc message bi ñu bëggoon a tirer foofu mooy tey bépp góor bu am soxna même bu fekkente ne sax du soxna bu gën man nga ko suturaal jéem a def la tout ba jéem ko changé teg ko ci yoon bu baax rawatina nag nga am soxna su mel ni jalika bañul dara nangul la lépp nga koy maltraité ba mu won la ginnaaw ngay réccu te réccu day fekk jëf wees donc ngalawaay nañu fonkaat jigéen ñi gën leen a jox seen cër gën leen a jox seen gëdd parce que jigéen da nga koy suturaal da nga koy war da danga koy yërëm donc ñuy fonkaat jigéen ñi jox leen seen cër xam ne ñoom ñooy suñuy yaay ñooy suñuy soxna ñoo ñuy jural aussi suñuy doom donc ñu fonk leen bu baax a baax alors beneen point bi ñuy jàll mooy ci ñi nga xamante ni si sama mbokku góor yi di am soxna ba pare di demaat di doxal ñu dégg Cheikh mu ni moom li mu gën a ragal mooy lan la xam ne day doxaan mu tàggoo ak moom déjà loolu rek gàcce nga am soxna di doxaan ba sa soxna xam ko ba tàggoo ak yow te ëllëg ku la laaj. lan moo la tàqale ak sa soxna di nga am gàccay waxoon ni ko dama doon doxal moo tax mu takkoo ak man kon kay xanaa war nañ xam ne loolu noonu baaxul waxuñu benn góor bu mu am deuxième femme mu am troisième femme wala mu am quatrième femme non non non li bon kay mooy tey nga am soxna ba ko ca kër ga génn di dem ci àll bi di taxawaalu bi di nekk ak ay gel di dem ak ñoom restaurant di dem ak ñoom plage bar et tout li ngay yàq foofu ci àll bi jël ko def ko ci sa soxna ba nga xam te ne su génnee nit ñi man ko naw man ko jox cër wala nga jël ko jox ko li ngay dem di lekk ji ci àll bi ak beneen gel nga jox ko mu dugg ci waañ bi togg reer bu neex nga reer ci sa njaboot reer yéen ñëpp ngeen kontaan nga am ci yàlla donc ku déglu li Cheikh wax boo nekkee ne yaa nga am soxna ba pare di doxaan war ngaa xalaat bu baax li ngay def même boo amul soxna également tamit am na ci yenn caaxaan yoo xamante ne ak yenn yàq yoo xamante ne si am na feneen xaj donc message bi ñuy lancé foofu mooy ñi nga xam te ne dañu am soxna ba pare di ko bàyyi ca kër ga dem ci àll bi di nekk ak beneen jigéen ñu jéem a delloo seen xel xam ni loolu tey bu ko soxna yéegee ba tas si ak yow gàcce gu mag mi ngi noonu te nag dañuy faral di wax ni mag moom garab gu muy bañ dee fekk ko fa bu mu fa noppaloo parce que dee dafa gaaw man nga fa toog di noppalu mu fekk la fa. am na ci ñoo xam te ne nag dañ naan am ñu jàmm seen kër moo tax ñuy génn di ko wuti feneen mais am na ñu ci bëri tamit topp seen bakkan moo leen yóbbu lu mel noonu même ki amul jàmm biir këram sax mën na jéem a bu ko jaree mu takk deuxième femme indi ci biir kër gi parce que tey nit ñi lay gis ci mbedd mi xamuñu li ngay dund sa kër ñoom li ñu gis ngay dund ci mbedd mi rek la ñuy wax alors loolu aussi tamit dafa jar a sóoraale donc bu ñu jógee ci point boobu ñu jàll également ci beneen boo xam ni ça concerne Jalika ndax dañu gis mu commencé am ay regret ci lu baax li mu doon def lépp ci digganteem ak biram te biram ndaw ko gis alors que mu gis ni moom tey jii daf ko toroxal pour man loolu amul dara lum ci ciy regretté parce que bi mu koy def borom këram la ko doon defal te loolu lépp mu ko doon defal yiw la ndax defal ko sa borom kër moo gën nga koy defal sa copain donc loolu mu doon def ci biram dañ jàpp ne ñun jaamu yàlla la. donc waru ci am benn regret képp ku nekk ci sëy di def effort pour sa jëkkër bu ko mës a réccu parce que li ngay def yàlla rek nga ciy am même bu ko sa borom kër gisul tamit yow soo ko mënee continuer jéemal def le tout pour dabbaar nee xam dëgg la tamit du neex ci xol ngay def dara pour nit te moom reconnaître lool mais loo mën a muñ gën ko continuer tamit du yàq dara. parce que loolu ngay def si tu es consciente que ni du lu bon rek kon di nga am conscience tranquille alors pour man jarul regret képp ku koy def tamit soo ko mënee continuer nga gën ci jàpp. alors beneen point bi ñuy tëjee ñu bëggoon ci cof tuuti rek mooy kaawu Noura dañu gis rôle bi muy joué ci biir série bi daanaka à chaque fois lu ci bëri lu yàq moo koy yàq donc message bi ni lancé foofu muy parent yi ñu yaraat xale yi bu baax parce que xale bi ni nga ko yaree rek noonu lay màggee parce que bien vrai que nag bon bu génnee ci biti dina am ay éducation yu mu am. mais éducation de base bi li njëkk ci xale bi ci waajur lay jógee te Noura dañ gis ni a chaque fois day wax day yàq day nettali te xale du nettali xale kenn du ko tàmbal muy nettali bu ko defee danga ko war a corriger ba nga xam ne lii du lu baax parce que tamit des fois am na yëngatu ci biir kër yi xale yi ñoo koy yëngal donc ku ci am sa doom tamit nga xool bu baax ni nga koy yare parce que boo ko bàyyee te du ko neex ëllëg mën na la yàqal loo xam te yow sa wàll boobu di nga toog di ko regret donc message boobu lañ bëggoon a tëjaale rôle bi aussi joué am na solo parce que dina tax aussi tamit parents yi bàyyi xel ci bu baax xale yi parce que xale doo ko bàyyi ci lu ko neex soo ko bàyyee ci lu ko neex rek ëllëg dina dem koo xam te du la neex wala mu def loo xam te du la neex donc tey analyse boobu moom lañ amoon ci seen série maîtresse d'un homme marié ci épisode 20 bi di dellu encore une fois di tuub di jégalu képp koo xam ne suñu wax laal na la lépp luñ fi wax rek mu baax xam leen ne ndimbalu borom bi la mais lu dëng ci ñun ñii di wax la ñu ngi tubaab bu baax di jégalu di ñaanal ñëpp jàmm di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah merci à tout le